comment et par quel procédé les fichiers de Gëm Sa Bopp ont été manipulés au niveau du Conseil constitutionnel. Et ce qu'on est en train de dire, nous allons vous donner les preuves de ce que nous sommes en train d'avancer. Monsieur Niang est revenu sur la procédure. D'abord, le premier problème que nous avons, et ça, j'ai rencontré la société civile ce matin, j'ai eu à leur parler de ces griefs. dès l'instant que le contenu de la clé USB devait être sous-scellé. Pourquoi avoir copié les données sur un disque dur Pourquoi Cinq jours après, on revient nous faire comprendre devant notre représentant que la clé qui était sous-scellée doit être introduite dans la machine. ce qu'il faut comprendre, nous avons au finish, sur les 66 819 parrains déposés, il n'y a que 20 724 qui ont été validés. 15 235 susceptibles d'être régularisés, c'est-à-dire ce qu'ils appellent les doublons. Et 30 860 qui sont des rejets définitifs que vous ne pouvez pas changer. Ça veut dire quoi Si on vous enlève 30 000 que vous ne pouvez pas changer, du coup, vous êtes éliminé d'office. Ce qui véritablement a attiré notre attention ce matin, quand on était en train de faire la vérification, on s'est rendu compte que sur les 30 de rejet pour autre motif. Il y a plusieurs Sénégalais dont on nous dit qu'ils ne sont pas des électeurs. Et je dis, tenez-vous bien. Regardez, on a pris, euh, on, on, vous avez tout ça C'est des rames de papier en recto verso. Donc vous imaginez euh, la quantité. On a pris une feuille. Ça c'est Chess non électeurs. Tout ce que vous voyez comme ça, ils ont un numéro de carte électeur, un numéro de carte d'identité CDAO, mais on nous dit ce ne sont pas des électeurs. La faute à qui Quand on a appelé ces gens, ils étaient étonnés. D'abord, qu'on leur dise qu'ils ne sont pas des électeurs. Donc ce qui est clair, j'ai dit à leur niveau, essayez de vous organiser pour attaquer l'État du Sénégal, attaquer le Conseil constitutionnel qui aujourd'hui vous a retiré votre droit de vote, peut-être à travers le fichier électoral qu'on leur a transféré, qui vient certainement de la DAF. Donc, ça, c'est une autre paire de manches. Mais, l'autre aspect non moins important, quand vous regardez ici, Vous avez ce fichier. Regardez ce fichier. Nous, on a transmis un fichier avec les cartes d'électeurs, les numéros de cartes d'électeurs, c'est 9 chiffres. Là, tout ce que vous voyez colorié, c'est des numéros avec 7 chiffres. Et ça, c'est le document qui vient du Conseil constitutionnel. Alors que nous, on leur a transmis un document avec des numéros de cartes d'électeurs à neuf chiffres. Mais eux, ils nous transmettent ce lot de documents que vous voyez là. Et vous avez ces exemples avec des numéros qui sont à sept chiffres. Ça veut dire quoi Les deux derniers chiffres ont été effacés. Voilà l'escroquerie. Voilà l'arnaque. Voilà la manipulation. Voilà la tromperie à laquelle on a associé le Conseil constitutionnel. Quand j'ai rencontré ce matin la société civile, ils étaient là, bouche bée. Parce que tout simplement, ils n'avaient rien à dire. Ça, ce des constats. Il ne faut pas qu'on nous dise, c'est en imprimant que c'est devenu 7 chiffres. Non, il y a d'autres chiffres, c'est 9. Il y a d'autres colonnes comme là, vous avez vu, c'est 9 chiffres. Mais là, c'est 7. Là, c'est 7. Là, c'est 7. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé L'autre fait non moins important, c'est quand on nous dit, toujours dans autre motif, région de vote non conforme. Région de vote non conforme. Région de vote non conforme, ça veut dire tout simplement, regardez, tous ces gens qui ont été appelés, au moment où je vous parle, ils ont leur pièce d'identité, Ils sont à Louga, l'autre est à Kanine, l'autre est à Diop, l'autre est à Sagata. Comment voulez-vous des gens qui habitent Louga, leur région peut être par exemple une autre région autre que Louga. C'est pas possible. Ça veut dire tout simplement, le fichier électoral a été tripatouillé. Le fichier électoral avec lequel le Conseil constitutionnel travaille, c'est un fichier manipulé. Il y a eu un transfert d'électeurs d'une région X à une région Y, ce qui fait que quelqu'un qui était à luga normalement, si on le déplace dans une autre région, euh, le logiciel ne le reconnaît pas. Maintenant, il faut se poser la question de savoir comment ce logiciel a été paramétré. Un logiciel, ce pas un esprit. Donc comprenez que ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel est d'une gravité extrême. Nous avons décidé avec nos avocats d'introduire un recours au niveau de la Cour suprême, mais de déposer une plainte contre X pour manipulation de données informatiques. Parce que nos données ont été manipulées, nos données ont été utilisées, on ne sait pour quelle fin, mais ce qui est clair, c'est que les faits ne mentent pas. Ils nous ont transmis des documents. Et dans ces documents, vous les voyez de manière très claire, les numéros de carte d'électeur sont passés à sept chiffres. Évidemment, quand un numéro de carte d'électeur passe à sept chiffres, le numéro n'est pas bon. Donc forcément, c'est un non-électeur. non moins important, on nous a parlé de doublons. Parmi les doublons, il y a non responsables, Gumsebop, qui sont des doublons. Ah oui Amdi Diop, Tambacounda il est doublon euh, Khady Mbaye Louga elle est doublon ce sont nos responsables des responsables de Gëm sa bopp qui sont des doublons je dis quand même il faut qu'on arrête cette farce le Sénégal mérite plus que ça le Sénégal mérite bien plus que ça et aujourd'hui on veut prendre l'opinion internationale à témoin. On veut prendre les Sénégalais comme témoins de ce que Macky et son régime sont en train de faire. Vous, vous êtes doublon, mais vous devez être doublon dans la liste de Gumsebop, dans la liste de Bok Gizgiz, dans la liste de X, Y et Z. Mais en vérité, on ne nous a rien donné. On nous dit, telle personne est doublon, point, taisez-vous. Vous prenez et taisez-vous. Et on vous dit, le Conseil constitutionnel, vous ne faites pas de recours. Vous ne pouvez pas xanaa duñu ay nit lu yàlla nu nit àtte fii dañ ko àtte e et nañ ci bàyyi xel donc pour répondre à votre question effectivement aujourd'hui ce qu'on est en train de faire c'est une conspiration c'est une escroquerie à grande échelle le Conseil constitutionnel et la société civile sont en train d'être utilisés pour cette conspiration dont Macky et le chef d'orchestre. Il faut que ça cesse. Il faut que les Sénégalais se lèvent. Il faut de manière très claire qu'on sauve la démocratie sénégalaise. Voilà. ci ci wolof euh, euh, li nga laaj mooy ndax fichier bi ñuy yore fichier bu baax la ma ne la fichier bi mënul baax parce que fichier bi jël ñun suñu ay responsable yu nekk Louga ñu ne la responsable yi di ay responsable lu gëm sa bopp mooy ñi ma la wax léegi nii Louga Tamba ay responsable lu gëm sa bopp ñu boole leen ci dublon yi ay responsable gëm sa bopp ñu ne ñu ñoom ñii ay nit lañu ñoo xam ne région ba ñu leen bindal ne fa la ñu war a voté waruñu fa voté waaw ku dëkk Sagata fooy vote fu dul Louga ku dëkk Kaneen fooy voté fu dul Louga ku dëkk Géwul fooy voté fu dul Louga kon ça veut dire de manière très claire ñoom ci seen bopp. ñoom ñoo manipuler fichier bi ñu yóbbu conseil constitutionnel ñoom ñoo déplacé ay nit ci ay région yóbbu leen ci yeneen région ñoom nag yaakaaroon nañ ne seen njublan gi du feeñ waaye yàlla weer na leen yàlla moom mooy fal buy soxla nguur moo koy foqat ci kon moom Macky Sall na xam ne ay balam jeex na deuxième tour dañu doon wax ma ne leen du fa yegg premier tour lañ koy daan moom Macky Sall du bokk ci ñi dem deuxième tour te balaa mu koy gëm rek ñu dem ci élection yi Macky Sall du bokk ci ñuy dem deuxième tour. je reste candidat je suis sur la liste de la présidentielle je suis candidat je suis candidat je reste candidat à partir de cette forfaiture on vient de remarquer que ça a été fait sciemment pour écarter Gëm sa bopp dama bëgg nga wax comprendre rek ne ñun gëm sa bopp élection yi candidat lañ ci parce que ba fi may wax ak yow nii candidat lañu amul kenn koo xam ne éliminé nañ ko te li nga xam ne moom moo am mooy lii ñu la wan wan na ne njublang moo nekk ci parrainage bi wan na ne ab càcc moo nekk ci parrainage bi càcc googu yàlla weer na leen lii xalaatuñu ko woon lii ñu wane nii ñoom xalaatuñu ko woon li ñu leen génnee nii ci chiffres yi ñoom xalaatuñu ko woon parce que yaakaaroon nañ ni duñ ko gis waaye yàlla moo yor mooy borom bët bu mag bi yàlla ommat na ma ba wan ma ko man mii maa ko gisal sama bopp maa woo techniciens yi ne leen kaay leen xool yëf yaa ngi nii càcc gi feeñ na bi ñu ñëwee ison ont amené leur machine bi ñu ñëwee teg ko ñu génne ko effectivement musuñu leen jox fichier bu am sept chiffres fichier bi ñu leen jox ay neuf chiffres la et vérification bi mooy li ñu leen wan léegi dañu am option de contrôle parce que nag nous on a une société informatique dañu am société informatique ci biir kër gi kon am na ci yëfi cuune yoo xam ne mënuñu ko def ce qui est clair c'est que lii ñu doon def njublang la càcc la goo xam ne yàlla feeñal na leen mën ngaa sàccug ndënd waaye tëgg ko dana la jafe